assalamualaikum warahmatullahi rahmatulah taala wa barakaatuhu ngi leen ziar yéen ñëpp rawatina suñu bokk internet yi satan fi ci ASG production tay nak ñu ñew génn ci naafila bés bi. guddi gi ñek ci weeru ko kep ko ci julli juróom ben rakkaw rakka bu ci ñe tarif fatiha ak ci inna aqina kal fukiyo sa borom na satal wet ci bakkar balaa nga jóge ci nga ko doon def di nga am yoolu ko aji jinn yoolu leel junniy miskin dem seeti te yi moroom yu jullit yu tawat ak yeneen i njëriñ. ASG production moo leen a ñaanal kooru jàmm ak salaam.